mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu euh, ñu ngi dikk ak yéen ci édition spéciale bu ñu am mbégte euh, fas yéene ci ànd ak yéen euh, tey nag ñu am gan muy Amadou Ba jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu jëflante ak bitim réew ak doomu sénégalais yi dund ca bitim réew tey moom lañu ñu dalal mbokk yi ci seen édition spéciale ak télévision Futur Média ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre. ngi lay fay. Pape Ngagne tey nag gan gi ñu am Amadou Ba la tudd mu ngi ganee àddina fii ci Ndakaaru daanaka am na lu toll ci juróom juróom fukki at ak juróom-ñaar. Euh, notamment ku mel ni Ousmane Sonko bokk nga ci ñi nga xam ne yaa ko kattanal yaa ko dooleel loolu nekk loo xam ne naqaril na ñenn ci ci ci affaire ba nga xam ni wax nañ ko est-ce que loolu bu yàggee ñu koy wax amul lu mun a yàq ci xelu président de la République. seytaane waxul dëgg mais yàq na xel est question. waaw lii ñuy di wax ñëpp lii ñuy ñuy wax yëpp. est-ce que est nañ le ay de mhm. Le mhm. ensuite. Mhm. moi je me bats pour le président Macky Sall. je me bats pour que la vision du président Macky Sall puisse continuer. je me bats. au-delà de 2024. mais sa vision en 2035. ok d'accord. Si vous mu le ni at pour moi, ci Sénégal. Moi, 2023. 2019 2023 qu'est-ce que le président va faire et nous, nous on est concentré et on doit être concentré pour que la nga moi vision la nga xam ni wax sénégalais binduko, ñu mën ko def gis nga bu 2023 passé dañ il y a 5 ans muy 2028 année boobu la ñu war a nattaat bu ñu 2028 mu dernier quinquennat bi nga moi moi 20 ans yi président Macky Sall jàpp ni buñ ko ko jàppalee liggéey ko ni mu ko bëggee Sénégal dina toll fi mu fi mu